société sénégalaise société africaine socialiste lañ parce que valeur yu socialisme muy solidarité générosité nga xam ne lu lu ndaw loo am yow danga koy bokk ak ñëpp benn famille kenn moo ci liggéey ñëpp di ci suturlu loolu loolu c'est des valeurs socialistes ak équi égalité euh, équité yooyu valeur socialiste la dafa ne moom loolu daal bokk na ko ak socialiste soo socialiste bokk nañu ko ak moom moo tax mu jàpp leen ma kontaan ci lool xam ne loolu dëgg la.